mais mais pourquoi nous jaar ci gaal yi lu ko fi jar di jar ci ay gal di dem ay europe pour fayé ko jaru ko bay fal li nga bëgg sa aduna afa nga dé dëng ko am bu ko yalla tuddul do am ñi am nañu jabar amuñu dom tax yalla ko tudd ñi amuñu dara amuñu dara mais yalla ko tudd ndax alimul ghaibi wa shahadati yalla mo xam lam moy nday ñuy jaar nday ci bir gal di ñak suñu bakkan mais ñun bo duggé ci gal yi sa papa sa yaay ngay bëgg sa pabar nah, si yaabaay nga bëgg rey sa fane nga bëgg faat sa askan nga bëgg noot ndax yaangi ci gaal seen xel du dal te mën na leen rey looy wut ndayu ci gaal yi la may ndayu sax dem gaal dugg ci gaal dem ay Europe la may ndayu Europe fogg ndayu Europe ay ay téeméeri jeune di dé ci gaal yi ndax bëgg dem kaw eh. barça la mbaa barsax n'attendez pas barça wala barsax dem Europe di jaar si gaal yi ni ñaa ngi dee ah. même Saint-Louis ak quartier Gox Mbaaj ñu bëri maa ngi ko dégg ni dee nañ fa ndax Europe jaru ko jarul dem Europe jarul ay gaal jaru ko boo amul bee nga toog fi nga dëkk yàlla moo lay jox li nga lekk jox la li nga naan nga dem Europe amoo këyit nekk aventurier di fanaan si baar yi di fanaan si mbedd amoo néeg amoo xaalis amoo këyit non ko may ñaan ngir yàlla lillaahi wa rasuulillaahi may kay ñaan xoolal jeunesse u Sénégal yi jeunesse bi ñun dañu soxla jeunesse su Sénégal parents yi soxla jeunesse u Sénégal yi ñu bàyyi gaal yi ni jaar di dem Espagne ndax la bëgg tekki fii ñëpp a bëgg a tekki fii ñëpp a bëgg a tekki mais ak teey patience ndax yàlla moo ni inna allah ma sabiri maa ànd ñu muñ dem Espagne pour lan liggéeyante xaalis dem kaw pour lan tekki jaru ko jaru ko may conseil képp kuy jeune nekk senegal la ngir yàlla ñu bàyyi gaal yi gaal essence la yëpp ak machine machine bi mën na dem geej pan fo paan jëm gaal gi mën na dem ba si biir gi ay su bu waxo dañuy ser tok bu njabay jeexee manam bu ciobi bi jeexee léegi li ngeen di def dem Europe pour lan pour teki dem kaw pour lan dem Espagne pour lan hmm gaay di dé ci geej gi ni quoi comme ça di dé nay wéñ ni ngi di dé ci geej gi ni quoi ndax Espagne ne t'en fais pas barzaq la wala barza barça wala barzaq